mbokki internet yu Africa Global Express TV dal leen ak jàmm ñu daal di waxtaanee wàllum politique ginnaaw Gaston Mbengue coow la nga xamante ni daal dina koy am ak njiital grand parti di Malick Gakou jàppale di Malick Gakou njiital grand parti jamono jilee ginnaaw ab communiqué la daal di def di weddi tuuma ya nga xamante ni nag Gaston Mbengue daal dina koy teg ci kawam Gaston Mbengue mi promoteur de lutte bi di xam ne rek ne njiital grand parti Malick Gakou dafay dem rejoindre ña lee nga xamante ni nag ñoo di mouvance présidentielle après ginnaaw bi mu xam ne nag ne Malick Gakou li muy liggéey yëpp njiitu mi la koy liggéeyal président de la république Macky Sall ca waxtu boobee nag jàppale ne mayu leen simleeg saa daal di génnee ab communiqué di weddi ba set daal di ne moom la muy liggéey liggéeyalu ko ñi nga xamante nag ñoom ñoo faree ci nguur gi te moom dafay daal di dëggal candidature ci élection présidentielle atum 2024 mu nga xam ne nag daal ne Gaston Mbengue moo ko justice bu ko defee rek ñu daal di leen di àttee la mu koy toppee nag moo di wàllum diffamation maanaam ay sos yu woowu kong yoo xamante ne nag yëkki na ko daal di koy teg ci deram boobee ki nga xamante ne nag moo di Malick Gakou nee na bés bu yàlla sàkk mouvance présidentielle bi ñu nga koy woo waaye moom demut dem lu wut fa mu fare rek moo di ca ku jéeg politique ga waral na nag ba jamono jile rek muy xam ne ni digganteem ak Gaston Mbengue plainte daal dina cee am danañ daal di dem ca kanamu yoon la ko defee Gakou daal di def ab porox ndollu di xamle nag ne ñetteelug mandat njiitu réew bi président de la république Macky Sall moom àndu ci tey àndu ci ëllëg te du ci mës a ànd xam xamle nag daal ne réewum Sénégal filé mu toll nii rek jot na sëkk politique bi kenn ku ci nekk daal di ci bay sa sawar waaye nag lii du ñetteelug mandat doonul loo xamante ne lu ñuy nangu la fii ci mim réew Malick Gakou moo yëkkati yooyu le kaddu ginnaaw ab communiqué boo xamante ne nag daal dina koy def di xam ne rek ne kii di Gaston Mbengue la muy wax amu ca la ko leer te it dara du ci dëgg bés bu yàlla sàkk ñu ko koy daal di wax waxal mu daan ne bile yoon nag dafa daal di doy li ñu bëgg rek mooy daal di saltel sama der ñeel élection présidentielle atum 2024 gële nga xamante ne nag daal di nañu koy dëgmal bu ko defee rek ay jiixi jaaxa daal di am ci xelu askan bi kii nga xamante ne nag moo di Malick Gakou nee na farewul ci njiitu réew mi président Macky Sall te it ñetteelu mandat googee waruñu kaa doon loo xamante ne nag dañ koy amal ci réewum Sénégal